salaamaaleykum waa Sénégal waa adduna bi sax lay wax waa fépp rek tey jii mooy le 5 octobre 2018 ma jël décision waxtaan tuuti ak ñi ma sopp ak ñi ma soppul ak ñi sopp sama doom ak ñu ko soppul ñépp mais li may wax tey jii ku ci ne mën nga koo enregistrer ndax xëy na jamono dina ñëw ci bis bi ci date bi ñu ne kat doon na jéem waxtaan ak ñun suñu borom nag daf ma bind def ma woykat def samay moroom it ay woykat ku nekk di xàllal sa yoon am sa public am ci itam ah, loo suturlu donc borom bi nga xam ne moom ma jaarale foofu jaarale fa samay nawle mënuñu lu dul di ko sant ndax moom la soob métier bi ñuy def nag euh, am na ñu wax ne du métier bu ñu gërëm xëy na wax wax nañu dëgg am na ñu ne déedéet métier bu ñu gërëm la ndax ku mel ni man ak sama moroom léeg-léeg nga bind benn woy woyu ko mu jariñ doomu aadama ñu ne loolu boobu tiyaaba bu la ko yàlla fayee di nga kontaan ku mel ni man walla sama moroom tam bind woy jëm ci boobu sens ñu ne dañuy sensibiliser tout un peuple jaaral ko ci musique jël ay artistes briefé leen pour ñu wax ci bii thème ñu bari daal ci jariñu ñu ne tam bu la ko yàlla fayee di kontaan mais xam nga bu caaxaan demee dëgg des su ma jëlee man sama cas man nag dama am destin bu xaw bu xaw a metti nag tuuti mais yàlla mi nga xam ne mooy sàkk jaam moom moom jaam ñi boo juddoo mu def cercle am ko de coono yi nga war a jànkoonteel yépp kenn mënul fexe ba doo daje ak moom comme point de bànneex yi nga war a dajeel yépp kenn mënul fexe ba doo daje ak moom donc àdduna noonu la su ma xoolee ci ginnaaw tuuti boo dégg man la sama destin dafa xaw a dafa xaw a metti tuuti nag bi ma amee dix-neuf ans fekk ma nekk baobab maa fa ne woon le plus jeune des chanteur lay Mboup mu nga fa woon Ndiouga mu nga fa woon nous étions les chanteurs folklore mu am ndeysaan benn xale bu ñuy wax Aboka bu dëkk Thiès bëggoon ay woy lool lool lool lool nag mënul woy mais dafa bëggoon woy avocat boobu ndeysaan mu ngi ci biir suuf yàlla na ko yàlla yërëm ne Gabon la jóge jamanteer la dem jëli dut sekk mii di woy tey ci làmb yi dem jëli misangoom mi nga xam ne léegi dafay nodd ca jàkkay mbambiloor ga wala ca jumaa ja dem jëli benn waykat bu tudd Omar Njaay di ànd ak ñoom moom li ko neexoon rek mooy qu'il soit entouré des chanteurs muy génn xaalis rek ñoom ñëpp ñoo def délégation ñëw baaw baab fekk ma fa ñu daal di ma koy présenté ni ma kii mooy avocat benn jamanteel la bu jóge Gabon mu ne dama bëgg nga woyal ma woy boobu ñu ne Papa Ndiaye yow ndeene xam nga Papa Ndiaye nee man moomuma ko suñu papa Ablaye Naar Samb moo ko fentoon daan ko woy mais orchestre yu bari reprendre nañu ko don man ak la baobab billaay mbubu woyee mu ñëw may ko xaw ma cinquante mille bon Ndiouga Dieng yal na ko yàlla yërëm moom tam mu may ko defe naa trente man bi ma woowee Papa mu may ma trois cent mille ci yooyu jamono trois cent mille la wàññi may ma ne ma dama lay xaar ba baabab tas ñu ànd jour boobu dañuy fa jóge dem ci benn dibiteri mu commandé bu ñu ñibbee ay 4 heures de l'après-midi mu ñëwaat jël si ma yóbbu ma ci benn kër bu mu dëkk ak benn mère bon mère bi fàtt nag mais mère bi ndeysaan ay doomi jigéen nag ñoo ñoo fa nekkoon ma jàpp ne daal kii xëy na moo leen di dimbali ndekete kooku lim ñuy doon may yëpp daf ko jële ci kër maanaam comme mu ngi ci biir suuf ma war mal ko daf ko jëlee ci kër dafa jël saagu jàmbur léegi nag saag boobu ndekete amoon na va euh, sept millions cinq cent mille CFA ca yooyu jamono mais genn waa léegi franc français la mooy ancien bi cinq cent franc français yi mais xaalis boobu moom xamul ni lii xaalis la xaalisu français la mu yaakaar ne bii mooy xaalis bu bon bi bii mooy xaalis bu baax bi mu jël franc français ba dem daat koy sànni ca raayu tëngëj ba ne li ne baaxul la ca baax di CFA nag moom la yoroon lii yëpp nag maa ngi ko xamee ci euh, ci enquête bi parce que bi ñu koy enquête maa ngi toog ñëpp ñu ngi toog nattu bi ma jëkk dal ci foofu bi lay bu ñëwee ne day wut intervention pour man ñu ne ko yow nee na la may na la cinquante mille lay mbub ndeysaan dem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm làmb poosam moom joxe cinquante mille ne mu ngi nii comme nag moom xale bi suñu âge la amoon et eh, ñu ñu tam on bien d'être euh, avec lui parce que euh, dibi ji dafay ñëw à gogo. Euh, ataaya ji ak xaalis bi ak gogo donc on bien wax dëgg yàlla et sur ce gars yi téye ma nag man Dut Seck Mbisaan ngoom ak Umar Ndiaye boobu ñuy wax alors man donk pour ñu boucler enquête finaliser ko man def naa prison deux mois ci loolu waykat bu ñuy fekk ngay woy ñu may la trois cent mille nga def ci prison deux mois bi enquête bi jeexee dañ ma soog a bàyyi ma dem tey fa nag ñoom Dut Seck ak ñoom Bissane ak ñoom Omar Ndiaye un bon bout temps alors chambre ba ma nekkoon ñu koy wax chambre appelant 3 appelant 3 ca 100 mètres bi may wax ni maa ngi am 19 ans pourtant beneen nattu ñëwaat na daraat sama kaw ci affaire contrat bu ñu ma doon proposé mais bala may jëm ca boppa ma finaliser bu njëkk bii jour tribunal bi bi ma ñëwee taxaw dañ ma relaxer purement et simplement ndax je me rappelle que procureur bi dafa ne koo fekk ci fu muy joué nga may ko xaalis légitimement mën na bañ xam fu xaalis bi jóge et puis bon yàgg nañu may artiste xaalis ci kaw seen donc monsieur Thione sec est relaxé purement et simplement loolu mooy natt bu njëkk ba bi ki topp mooy bi passé nii rek duma dugg nag ci détails yi parce que mu ngi ci loxoy justice damay wax rek pour briefer ndax ngeen comprendre gis nga chambre appel en trois boobu bi ma natt bi ñëwaatee dal ci cent cinquante ci cent cinq concerts yi nga xam ne moom la ma doon proposé même chambre boobu falaa demaat mu nekk natt bu bizarre mais ma jàpp ne rek bon ci sama tracé la bokk dama mas a wax euh, laaj suma xarit Sidi Lamine Niass ci benn émission buñ doon def Walf Fadjri ma ne ko est-ce que xaalisu boîte de nuit dagan na pour dem Makka mu daal di feneti tontuwuma euh, di wax leneen ci biir émission bi ma reposer ko waat la même question tontuwuma bon ma bàyyi noonu xëy na bëggul woon dugg ci boobu débat donc ñun métier bi nga xam ne moom lañu yàlla xiir moom la sob suñu borom ndax bu ko soobul woon du am buñ ci boolee li mu àndal yëpp coow yeeg cat yeeg risques yeeg dégg naa fi ba tey euh, même ak artiste bu dul man bu ñu arrêté parce que dañ ko fekk soire muy way ñu may ko xaalis ndeke faux billet la mais ñu arrêté ko deux trois jours après boo après xam naa ñu xam ne kii il n'en est pour rien ñu daa koy obligé bàyyi xoolal boobu risque boo xam ne ñu ñëpp tout artiste da nga ci exposé wu mais beneen bi li nga xam ne moo ma gën a soxal mooy métier mii ma nekk bu soobul woon suñu borom duma ko def te it xam naa ne suñu borom may na ma ci xel ndax damay récapituler rek man Thione Seck li ma bind ci ay way mu jóge ci sama bopp bi su fekkoon ne man woykatu tubaab laa jënd naa ay île parce que li ma bind bari na te maa ko moom li ma bind woy ko bari na te maa ko moom ci sama ci sama bi la jóge te itam man kenn mësuma arranger musique xanaa kay dama lay bàyyi nga indi benn partie waaye man maay tëggal sama bopp ni ma ko bëggee ne la nii laa ko bëggi yow miy guitare nii laa ko bëgge et cetera et cetera ba morceau ba yegg moo sax kenn mësul dégg coowal Thione Seck ak tel ou tel artiste droit d'auteur kon ma koy sant yàlla mais beneen aspect bi mooy pourquoi ñun suñu métier mi war a deme nii bu weesoo Euh, ŋaññante bi am ci suñu biir ñàkk yéenante jàmm bi nga am ne mooy am suñu biir mais am na leneen lu taxaw loo xam ne c'est valable pour tout artiste man mënuma rëññee métier bi nga xam ne moo tax ñu xam ma moo tax ma am ci lu ma lekk bay lekkaale ay nit moo tax ma am ci ay raaya yàlla dimbali na ma ba am naa ci chevalier de l'ordre national du mérite am naa ci chevalier de l'ordre national du lion am naa ci chevalier de des arts et des lettres am naa ci ambassadeur de l'UNESCO su ma ko woyul woon su ma nekkul woon woykat yépp mënuma ko am mais da ngay toll moment boo xam ne coow li dalay singili te doo xam le pourquoi weer wii nag mooy weeru coon sekk parce que bu ne dégg naa ko te je ne comprends pas le pourquoi ma ne nag xaaral ma waxtaan ak ñi nga xam ne sax am nañu cofeel ci man même si su ma nekkee un incompris comme je l'ai bon de façon j'ai toujours été un incompris soo waxee ñu ne dafa naqari deret mais saraan boo ko laalul du jooy dama naqari deret mais kon bul ma tooñ parce que man du la tooñ soo waxee ñu ne dafa bëgg xaalis mais ku bañ xaalis ku bañ xaalis ku ne yaa ngi xëy naan dangay ngay muslu ci seytaane mais seytaane bi gën a garaaw gën a bon gën a foor mooy xaalis te ku ne yaa ngi xëy dem di ko wuti te pourtant dangaa yeewu fajar bi lii suba wala nga dem jàkka ja ñaan yàlla mu musal la seytaane boo ñëwee nag non taal nga sa oto pour dem wuti seytaane muy xaalis donc kan moo bañ xaalis dafa bëgg xaalis mooy maanaam bu ñu discuter maag yow ci tel tel contrat d'accorduñ ci prix maa bañ ne lii du ma ko joué temps lay joué soo génnee na ba dafa bëgg xaalis loolu dafa yomb trop doo dégg ku ku leen ne Thione dafa sàkk sama xaalis Thione Seck dafa tirande sama xaalis doo ko dégg te li nga xam ne moo gën a bon moom la yàlla gën a bañ mooy di juger nit te xamuloo ko dégg naa a ah, foog naa damaa déggoon rek loolu dangay yokkal waa ji ay point ay martaba ci yëkkati koom ba pare di nga ci am bakkaar yu garaaw a garaaw a garaaw loolu ku ne war nga ko évité loolu du yëfi jullit jamono bi ñu dund nag non léegi yàlla ye ye gaa yi dañu jël xaalis def ko yàlla jamono bi ñu dund mooy jamonoy xaalis complot pour am xaalis complot pour fexeel nit pour dóor ko man dama daan dégg dóor rek waaye ba ñu ma dóoree laa xam luy dóor ndeke dóor mooy lal benn plan fexe fexe fexe fexe ba ñu jël ci yow xaalis walla ay bijoux xoolal jamono bii léegi ku wax ñu enregistré la ku wax ñu enregistré la ci portable yi te boo ko xoolee lii moo leen wan ne que suñu borom am na existe na segam doomu aadama moo mën a defal portable def ci ay puces bii mooy jël son bii mooy jël musique bii mooy jël image bii mooy photo bii mooy garde message et cetera et cetera segam doomu aadama moo mën a créer loolu estamaak suñu borom lépp lu waay di def suñu borom mu ngi ci ne jàkk te koo xam ne dañuy gas suuf nga fekk suuf ñu tëral la fa suuf nekk sa gauche suuf nekk sa droite ñu jël suuf teg ci sa kaw te ala kuli al ku ne di nga fa jaar ñi sopp coon laay dëpp lay waxaat tuuti gindi leen rek pour ñu bàyyi xel ci li may wax parce que nous sommes tous tous des partants bu fekkoon ne alal rek mooy tax nit du dee non konteel ci dëkk bi wala beneen dëkk wala beneen dëkk di nga gis kañ ne moo fa gën a riche dem na walla yàlla teg ko natt boo xam ne moom rek moo ko xam mu te mu ngi koy bëgg a rey alors bu fekkee ne man Thione Seck yàlla dafa ma jaaral ci ay way jéem naa ki nag lu ma man dékku naa ki lam lu ma man ki sama loos wi ak sama digg ginnaaw gi ay rëkk rëkk rëkk yu bari la yu bari bari bi may résister ba léegi waaw naka laa man laa mën a jële man signé ak nit un contrat indéterminé mu poussé ma defaral ma këyit goo xam ne dafa ne la famille va protéger mon investissement ok ma def ca la ma man te man je suis comme ça parce que su may defar damay defar ba mu baax parce que loolu laa xam man lu baax laa xam defar ko ba nga xam ni ay kilifa boo mënti nekk mën nga faa toog mën nga faa toog parce que dama ko defar par rapport à mon image bëgguma tam ñu koy méngaleeg yeneen milieu yi lii moo indi penc mi mais base waxtaan bi ma bëgg wutal ko ay seede man moom moo penc mi te bëgguma moom penc mi licence bi nag maa ko moom euh, euh, lépp lu laal ci wàllu commerce foofu maa ko moom mais les murs ma m'appartiennent pas ñu bari dañuy foog ne dama wax ba pare dellu ca dama wax avant penc mi di ñëw deux ans avant ñaanuma yàlla may ma boîte de nuit ñaanuma yàlla képp ku takk ci man nga am boîte de nuit maa ngi giñ ci barke yont yàlla Muhammad mi nga xam ne mooy suñu yaakaar ñun en tant que musulman ak ci xaadima rasul mi nga xam ne ginnaaw yàlla ak yonte ba man moom laa yaakaar bëgguma moom pénc mi te duma ko masa moom bëgguma moom boîte de nuit parce que maa ko waxoon maa xam pourquoi ma wax ko bëgguma képp ku takk ci man sax nga am boîte de nuit li ma ki dugal nag c'est simple normal man ak samay morom ñoo fi newoon ku ne di liggéey ci boîte jàmbur gérant yi boo nekkoon en baisse dañuy dem lâchement lay wax de négocier ak artiste bi nekk en hausse ta pasta nag ba yow nga jóge fa moo tax nga daan dégg benn artiste mu ngi tel boîte nekk dafa pendant six mois sept mois xëy xëy jóge na fa léegi keneen moo fa nekk yooyu moo ko daan indi walla ñu war la fay du ñu la fay di la kayit loo ba nga am problème ak say musicien dal na ma man ay yooni yoon ak samay moroom ñëpp ah parce que booba temps musique bi <laughs> c'était comme le dollar da ngay yéeg a ko wàcce rek Sénégal noonu la boo génnee album bu toj no gars yi jox la bopp nga dawal 3 mois trois mois et demi bu keneen génne album bu toj toj toj nga xam ne gars yi ñoo bon dootoo seen parking ba day vide ñu koy waxante nag seen biir loolu dal na ma dal na Youssou Ndour dal na Omar Pène dal na képp ku daan joué ci boîte de nuit pendant des années on a toujours fonctionné comme ça bi ma maaree nag ci yooyu ci laa dem investir au penc mi pour am sama liberté personnelle ak sama baat man lii moom a dugal ci investissement wu penc mi mais les na ma m'appartiennent pas et bëgguma mu appartenir ma bés bu ma moomoon tey penc bi ma jënd ko tey jii balaa semaine bi dellu si noonu ma rasé ko man duma am boîte de nuit ñaanuma yàlla man dee ma ma bàyyi ci ko suuf boîte de nuit jamais ak lépp lu tax ci man xanaa kay dama naan deekat këf na ma waaye balaa may dem kat yàlla dimbali ma ba gas naa ay teen defal naa ay jàkka wala ay jumaa mais boîte de nuit ci kaw suuf ñaanu ma ko yàlla j'ai toujours été nag un incompris parce que dañ may jugé te xamuñu ma yàlla maa gën a xam man coon sekk na yàlla am na gëm naa tam ni yonent yàlla Muhammad mooy yonent bi nga xam ne moom la yónni d'ailleurs mooy le dernier des profet ba mu ñëwee ba léegi keneen ñëwatul te keneen dootul ñëw li may nekk nekk nekk ci biir boîte de nuit yëpp di way yépp jox naa yàlla cër jox yonent bi cër yàlla may na ma doom ma tudd ko Seydina Muhammad mu ngi fii ci kër gi daagu yàlla may na ma doom ma tudd ko Fatoumata bintu Rasoul mu ngi fii ci kër gi daagu yàlla may na ma doom ma tudde ko Seydina Alioune mu ngi fii di kër gi daagu yàlla may na ma doom ma tudde ko Aïcha Rasoul mu ngi fii ci kër gi daagu yàlla may na ma doom ma tudde ko Seydina Ababacar Sadiq mu ngi fii ci kër gi daagu kon man xam naa kan mooy suñu borom xam naa lan mooy suñu borom xam naa ku yont yàlla Muhammad li may nekk nekk ci boîte yëpp maa ngi bàyyi xel suñu boroom kon man mënumaa naan boîte nii bi Thione ko moom du am mën naa luwe nag bërëb comme nii ma def luye bërëb bi su weer dee ma fay defar ba mu baax ci don ci li may defar man su ma demoon tey ji ba woyatuma sax sama doom mën na ca suturlu comme moom tam yàlla jaaral na ko ci yoon wi maanaam bu ñu doon ay footballeur léegi am nañu terrain boo xam ne fa la ñuy footballé kenn du ñu sonal kenn du ñuy chantage bu ñu nekkee en hausse ak en baisse ak en virgule ak en point d'interrogation ak en point virgule ak lu mu mënti doon non kenn du ñuy sonal man lii moom a dugal ci penc mi léegi nag moom Bayer. bi may ñëw di jël penc mi dama ko fekk mu sonn lool billahi wallahi wa taalaay benn métis bu ñu naan Bernard Ramel moo fa nekkoon boîte bi daawul dox parce que Bernard Ramel boo affaire discothèque la doon def te foofu gay yi xam nga loolu boobu temps Kilimanjaro moo xew te maa fa newoon di karawaase bu baax muy fees dell tous les jours tous les jours alors ba benn remède boobu rek moom Bayer la moom doxul benn démarche de Bernard Ramel boobu moo ñëw sama kër di ma topp je veux travailler avec toi je veux travailler avec toi pendant ma ne ko je suis dans une boîte je papa peux pas ba seytaane ñëwee nag sama diggante aku waa Kilimanjaro ba mu ñëwaatee laa ko ne ok je prends man lii moo ma yóbbu penc mi ma ne ko nag. sa bailleur laa bëgg mu toog ma toog ñu wax ke ñu di discuter duma ma duma dof avant may investir am naa këyit yoo xam ne rassuré na ma pour ma man ma mën a investir waaye léegi su ma demee en tournée européenne deux mois et un mois et demi la waroon doon bañ demee ba foofu nag yàlla ubbi xéewal yeneen yi dëkk nag ñëw bëgg ñu tëggal leen yegg fa eh, comme xas nañ ba ñëw sur place kaañ la bu taxaw comme ba ñu koy waxee rek on l'a accepté dem Italie dem Suède defe naa dem Angleterre li waroon am un mois et demi nekk deux mois et demi donc le temps que ñuy préparer bay ñëw ak bagage yeeg xam rek daal bi ñu ñëw daal yegg si nañ ci li ko manqué trois mois bariwul bi ñu ñëwee lañ fu fekk benn. demande d'expulsion boo xam ne ça a été accordé par le tribunal bi ñu ko wooyee moom laaj ko ne que lu tax nga def lii dafa ne rek bon je sens il sentait qu'il qu'il devait comme ça alors bon suma avocat Ousmane Seyni ma ne ba bàyyi noonu ñu compté trois mois yi ba mu mat sëkk ñu jox ko ko loolu c'était en 2014 mais nous sommes en 2018 donc moom ça veut dire que depuis 2014 ba léegi moom mu nga fayee ko location bi ba tous les mois et entre on a resigné un contrat de reconduction sous seing privé maanaam du kenn tab mettre ko sous frappe kenn def ko sous frappe loxo lañ ko bindee mu signé ma signé le manager du penc mi ji ma mën xulee signé loolu la ñuy wax soutien privé ndax loolu moo ëpp sax valeur juridique normalement loo xam ne dañ ko tàppe noonu ñu kiy dox ñu ki dox ba léegi mais comme nag on a commis l'erreur de ne pas casser cette ordonnance la man je ne suis pas un juriste man xawma ci yooyu dara man je pensais que comme léegi le problème était résolu boobu ordonnance moom da koy ranger rek dans un tiroir wala sax mu gàdde ko comme souvenir mais day xëy a xëy rek da da koy brandir tay alors man duma juriste ndekete ordonnance boobu mu yor dañ ko waroon a casser bi ma xoqatalee benn yoon daf ko ñaari yoon laa ne suma avocat léegi nag kii foog ñu xool naka la ñuy casser bii ordonnance parce que c'est pas normal ñu ngi ci tànk yooyu maître Ousmane Seye mu ngi ci maître Dialikane mu ngi ci te dinaa ci boole sax yeneen avocat parce que il faut que ma comprendre ce qui se passe alors man nag par déontologie par principe bëgguma di waxe montant location jàmbur mais damay nëbb montant bi nga jëlal ma rek la date exacte sama caméraman bi Gilbert jëral ma la date exacte ak la signature bi ki suuf bi mooy mois de juillet bi mooy mois d'août c'est bon waaw léegi nag tey jii boo dégg boo déggee ci commencement bi man leen tey mooy le cinq ci accord bi ñu am à partir du cinq bi la ñuy dugg nag ci mois bi ñu ne donc bu ñuy jouer ce week-end là comme d'habitude ci lañ koy fay waaw kii kuy encaissé location depuis 2014 après mu am ordonnance ba ñu waxtaan ba signé waat benn contrat de recondition dans les mêmes condition parce que boobu sax dañu ko abrégé pour mu leer waaw ngay fayeeku location ba léegi waaye léegi nga xëy xëy ne kii nekk fii danga koy génne xanaa nag dëkk bi am na yoon xanaa booy génne nit sax di nga ko ne motif bi kat moo tax ma lay génne xanaa lii nekkatul rek affaire location su weer dee nga fay. léegi comme moom jaral na ko lii yëpp maa ngi waat ci barke yonte yàlla Muhammad billaahi wallaahi watallaahi moom bu ñu ma remboursé li ma fa def non bëggatuma penc mi ñu jël penc mi li waaye di wuyoo nag ba daf koy nuru comme dégg naa ne dafa am société bu mu ko bëgg a jox dégg nag laa ci am dégg wóoruma waaye xam naa daal am na lu senn jóge ci boorom lu ñu wax loolu société bi mu koy joxe nag benn société la buy def affaire alimentaire mais comme wóoruma duma tudd tur bi daal dégg naa daal laa ci am mais lu waaye di wuyoo da koy nuru comme jaral na la lii yépp monsieur Diagne non billaahi wallaahi wa taalaay bu ngeen ma remboursé la ma fa def non ma ne la penc maa ngi jëlal mais ma baamtuwaat di wax ne képp ku ma dégg ku dégg ne Thione Seck génn na boîte de nuit dimbali leen ma te xam ne nekk maanaam teyuma ko képp ku dégg ne Thione Seck jël na xaalisam jënde ko boîte de nuit bala ngay wax dara jug leen ngeen jàppale ma xam ne ne maa ngi bëgg a dof wala damay xaru wala boog teyuma ko parce que man duma ko tey di jënd boîte de nuit déedéet mën naa luye nag bërëbu jàmbur bu nekkoon boîte de ma ñëw liggéey fa pour dàq fa sama wërsëg parce que yéen yéen a gën a xam ne amul benn orchestre buy teg ay bagaasam ci mbedd mi naan de jouer koy jouer ñun li mooy suñu métier ci lii la ñuy seeñoo xam nga ne moos ko yoreel ñaari weer mu yóbbu la tribunal dem wuti expulsion boo ko amalee quatre ans xanaa kooku bu dalay génne Sénégal comme moom deux mois lañ ko ameloon jëm trois ndax tukki buñ demoon mu bëgguñoo génne penc mi waaw buñ ñu ko ameloon quatre ans moom léegi kon moom Sénégal la ñuy génne xanaa boobaak léegi mais ça fait quatre ans ñu ngi liggéey penc mi ba léegi mais ñu ngi koy fay mensuellement donc moom ba léegi mu ngi koy encaissé et sur ce damay baalu àq ñi nga xam ne sama téléphone dafa sone sone ba dama ko obligé fay. da ngay dégg ku nekk ci ligne bi di jooy ku nekk bitim réew di fay lu cher pour di nan ma papa lii lan la pourquoi ñu lay euh, def nii nangam nangam nangam te dëgg la de Sénégal nag am na nit ñu baax ñu baax a baax mais senegal am na nit ñu bon ñoo xam ne yéen wuñu kenn jàmm bala ñuy kontaan rek nit nekk ci ay jafeñ-jafeñ te pourtant nous sommes un ak quatre-vingt pour cent musulmans mais c'est li gars yi war ci xol yi ak li ñuy wax moo méngoowul c'est bizarre nag c'est triste parce que gis naa ci ñoo xam ne buntu penc mi la ñuy toog dafa dàq seen wërsëg di fa seelu ca kër ga mais bi yëf yi amee boo déggee li ñuy wax naan woy dafa fayu laa dañ ko war a génne ku ma waxoon ni ñii dinañu wax lii du bokk gëm te léeg-léeg su morom bi ngi ne ma eh, mais grand bàyyi fi dara waay bàyyi fa dara donc nga xam ne sénégalais ci boppam la kenn mënul comprendre maa ngi jéggalu bu baax ñi nga xam ne dàq nañu seen soxla woote rek mais lii affaire bii maa bàyyi woon bagage yi ci biti ndax huissier bi ma jël ñëw def constat bi samay avocat nag Ousmane Seye ak jaarikan def nañu li ñu war li leen war déposé nañu benn requête de référé sur difficulté comme le veut la soo bëggee stoppé procédure moo tax ñu dellowaat bagage yi ci biir mais jot naa jàngat ne li ñu ma wax ne avocat bi nga xam ne moo envoyé huissier boobu ci liñ ma xaw ma dëgg la am déet xool na xool xam ne ne lii c'est pas logique daal mu accepter demande de euh, de comment dirais euh, de hmm, li ma wax léegi nu mu tudd encore. demande boo xam ne daal yoon moo ko maye. boo ko déposé ñoom dañuy lemat seeni kaaka dem mais image imagineel nga indi cent policiers ñu bàyyi koñ bi bàyyi koñ bi benn auto du jàll ñëpp daw faq lan moo xew fi lu xew fi ñu ne Thione Seck la ñuy génne penc bi ay waay kii vraiment tooñ na ma yàpp na ma mais comme moom dafay jouer ak sama image dafay fontoo sama image xaw ma nag lan moo ko ko jaral waaye en dehors de demande pour ñu casser la procédure la je pense que bu fekkee yoon nangu na ko de connivence avec mes avocats ñoo kii dinaa ko porter plainte personnellement pour pourquoi muy saccager sama image comme sax xaw ma ndax ndax je me bien exprimé ou pas su fekkee ne maanaam wax naa lu jubul ngeen baal ma ko ngeen jégal ma ko su fekkee ne am na koo xam ne dafa yaakaar ne moom laay waxal dama ko tooñ dama baal mu jégal ma waaye jublu ma ci loolu mais li ma intéressé daal mooy je ne comprends pas cet acharnement sur Thione Seck sur mon fils Wally Seck lan la lu xew pourquoi ça ngeen baal ma ak. salaamaaleykum gars yi kon suba mooy samedi incha allah penc bi la ñuy ak Ramadane. bu Waly Seck ak Ramdan Senior waaye bu jëlee grand théâtre lay may ñëw fekk si pénc bi le temps muy ñëw comme d'habitude man may assurer la première partie bu ko defee amul inquiétude lawoon nawoon fa woon suba samedi ci pénc bi